salaamaaleykum alaikum euh, ñi Setan euh, Jotna TV Tay damay ñew ak yeen ci numéro spécial chronique Jotna bi nga xamné day porter sur les inondations euh, bala may xuus ci inondation yi nak dama bëggone masawu sénégalais yépp yi nga xamné ni tay ñu ngi dëkk ci biir ndox mi ak coono yépp yépp yi ci mëna euh, di jaalee également sénégalais yi nga xam ne ñàkk nañ seen bakkan ci inondation yi nga xam ne nii moo amoon ajuma bële passé euh, le 6 euh, août 2022 bu ñu nee inondation nag lan mooy inondation defe naa sénégalais kenn dootu ko jàngal lan mooy inondation fu ndox daawul woon taa ndox commencé di fa taa mën nañ wax ne inondation la euh, li tubaab di wax ne submersion ponctuelle d'une zone habituellement sèche par des eaux soit des eaux douces ou des eaux salées loolu la ñuy wax inondation dafa am nag euh, ñetti façon inondation ñun bi ñu gën a xam nag Sénégal mooy inondation pluviale c'est-à-dire day taw moo koy waral taw yu bëri ak ci diir bu gàtt ndox bi mënul dem mu taaju loolu moo koy c'est loolu am Sénégal parce que nag ndox ñetti yoon la am ndox soit day walangaan moom la ñuy wax ruissellement wala mu infiltré wu dugg ci biir suuf si wala mu évaporé te évaporation boobu day jël temps bu fekkee nag dafa taw lu bëri ndox mi mënul infiltré wu forcément day ruisselé wu walangaan lolu moy waral ay inondation de type pluvial amna yenen type inondation yu ñuy wax euh, inondation fluviale inondation fluviale nak xamuñu ko bu baax Sénégal mais li tax makoy fatali moy généralement da ngay dégg ci presse bi ñu ne inondation amna Sénégal lu normal la parce que amna Allemagne amna France amna fenen mais inondation du inondation du benn généralement pays yooyu la fay am ay inondation fluviale c'est-à-dire fleuve yi ñooy fees ba wàcc yoon envahir de yi lolu mo bëri lu muy am ci dëkk yooyu Sénégal nak côté Matam mën nañ né mën na fa am bien que bëriwul ak Saint-Louis parce que bo xolé 2003 li waralon gouvernement président Ablaye Wade à l'époque ñu creuser won beul bi ci Saint-Louis moy brèche bi c'est parce que dañ doon craindre inondation fluviale c'est-à-dire que fleuve bi débordé ba ñëw envahir de yi am na beneen type d'inondation nag bu wax inondation côtière loolu ay ngelaw yu met moo koy waral généralement ay tempête yu am ci côte bi mais ñi dëkk ci euh, wetu géej gi ñooñu lay dal souvent légui inondation yi lan mo koy waral dañuy wax ne amna lu ñuy wax cause naturelle lu demee ni taw yi taw nag moom li tax ñu naan c'est naturel moy ñun mënuñ ci dara yalla moo yor tawam mo koy wàccee donc bu amé ay taw yu bëri té amuñu ay jumtuwaay pour jàllale ndox mi forcément day am ay inondation wala comme ni ma leen ko waxé légui lu demee ni ay dex ndox mi yéeg ba ëpp ci dëkkuwaay yi lu demee ni ay tsunami yoy yëpp dañuy wax ay cause naturelle inondation la mais am na loo xam ne nii cause yoo xam ne ci ñun la dépendre nit moom la ñuy wax cause anthropique dañuy wax ne imperméabilisation des sols xam nga fépp dañ ko dalee fépp ñu tabax ko ndox mi dootul mën a infiltré wu perméable yi nga xam ne dañ koy sànni ci mbedd mi rek day contribuer ci loolu parce que ndox mi du mën a infiltré wu mais beneen cause boo xam ne nii mooy bi gën a metti soit dañuy ñàkk wala ñu tuutile li ñuy wax ay ouvrage pour évacuer ndox L'eau lu demee ni Sénégal bu qui évacuation au pluviales Denti, ci delta ginnaaw bu réseau linéaire ONAS bi pour eau pluviales Sénégal 314 trois cent euh, quatorze kilomètres c'est là? te loolu lu ndaw la 189 trois cent quatorze Dakar la nekk mu que soixante euh, Dakar le nec donc ouvrage évacuation ou usées yooyu dañ ci am ay déjà jafe yu bëree bëri mais il y a également dimensionnement ouvrage yi ñuy tabax ne dañuy bëgg lutter contre les inondations wala ouvrage ouvrages infrastructure yi ñuy tabax wax ko dimensionné xol ñaata taw la mëna déku euh dama dégg ben ministre de la république muy wax si nous dimensionnons l'ouvrage, nous allons dimensionné à 100 mm de plus. C'est-à-dire maintenant supporter 1000 mm d'or pour le souffle. C'est ce que nous avons fait et nous avons sous le gouvernement. Parce que les zones qui généralement, sont des zones tropicales, généralement, sont violentes. Et maintenant, bris, qui sont coup. Parce que nous sommes au Sénégal. Euh, généralement 75 pour taw huit semaines la donc mauvais dimensionnement ouvrage yi jafe yu metti la ci indi cause ci ñun la dépendre moy li wax la boulimie foncière zone yep lañ tag. def ko ay kër bu ma nit ñi dem dama naan fan la nguur nit ñi di dem di dëkk foo xam ne du zone de captage kan moo ko dagg zone de captage c'était la zone de captage des eaux pluviales donc foofu ndox yi daan jógee Grand Yoff Liberté 6 yëpp foofu la daan ñëw tey jii nii ñu jël ko depuis les années 2000 dagg ko ay kër tabax ko d'ailleurs patrimoine SONES la woon ñu jël lépp dagg ko ay kër ça ne veut pas dire que nag fi ne nii kenn waru parce que même bu dee ni zone non édifiant là nga jël ko tabax ko ba paré bu féké né défar nga ouvrage yi nga wara défar nit mëna fa dëkk parce que amna dëkk yo xamné bo fa démé dañuy am ñuy dëkk même ci biir ndox mi dañuy sur pilotis donc lool yépp question organisation la ak question ouvrage yu doy pour nga mëna dëkk ci zone yooyu euh, benen bi mooy déforestation duñ koy wax ci cause yi généralement c'est-à-dire daggam garab gis nga forêt dafa am solo ci parce que forêt bi barrière physique pour dormir non seulement mais day aspirer ndox mi dañuy wax ne éponge la boo xam euh, inondation yi du fu Ziguinchor damay souvent ne li taw Dakar même palais de la République day inondé mais jafé jafé yi am Dakar amuñu ko Ziguinchor bien que Ziguinchor man na am ay jafé jafé mais amuñu ko Ziguinchor parce que ay forêt moko wër té loolu yépp day contribuer ci limiter impact inondation yi légui nak inondation yoyu yan conséquence la am yan njeexital la am ci sunu dunduwaay dama koy def ci ñetti patch bu jëk bi moy ban impact la am ci économie Boko xolé inondation day impacter ci service yi inondation day impacté ci secteur informel ajuma bale passé defe naa kat yi doon jaay ñu bëri jaayuñu nit yu bëri ñu waroon a jënd aussi ñu day impacté ci tourisme bi day impacté ci déplacement yi day impacté ci télécommunication parce que kéro réseau bi amoon na problème kéro Sénélec par exemple il faut couper le courant ci gox yu bëri loolu a day impact ci économie te boo le courant rek da un impact sur industrie donc économiquement euh, inondation yi une bu rëy la am ci Sénégal 2009 banque mondiale de l'évaluation pour warner l'inondation, euh, inondation yi au Sénégal 44,5 milliards par an En 2009 la Guinée a jii et am na yu muy déglu près de 100 milliards euh, de francs CFA lay coûté gouvernement Sénégal boo ko jëlee ci wàllu environnement itam am na ci njeexital parce que li ñuy wax day yàq cadre de vie bi aspect paysager bi parce que fuy ak fudulta du benn d'ailleurs am naa benn xarit bu ma doon wax ne booy jënd kër Dakar da ngay xaar ba nawet nga dem xool ko parce que bu dee noor doo xam ndax fii day taa wala du taa inondation yi day day am dommage aussi ci terre agricole yi parce que am na yoo xam ne ni tool yi euh, day inondé

c'est à moins de 50 mètres d'altitude te aussi suñuy suuf du nous mën a dékku bu baax euh, ndox mi beneen conséquence bi moy côté social côté social nak inondation day am njeexital ci dëkkuwaay ci logement ñu bëri tay génn nañ seen kër yi amna ay famille yo xamné ne déstructuré wu na parce que gor gi moy des ci ndox mi jigen bi génn outil fu mu dëkk côté transport

mën na am aussi ci éducation te ndax école des yi day inondé te aussi day yokk pauvreté bi ci nit ñi léegi question bi ñuy posé wu mooy lan la gouvernement bi def ci gestion inondation Je euh, damay rappeler que ne inondation yi mu ngi commencé am feeñ réellement Sénégal en 1989 après 89 dans les années 89 90 lu am na ay gëstu yu wane que ne buñ ko commencé ci 1950 euh, ba léegi gëstu yi dañoo wane que ne de 1950 à 1967 euh, dafa nekkoon période boo xam ne taw yi dafa bëri woon de 1967 à 1989 mu nekk période boo xam ne taw yi dafa wàññeeku woon bu metti parce que dafa amoon ay alternance période humide période sèche donc en 69 bi y yi ko bu metti eh, mu commencé am ay sécheresse moy la sécheresse des années 70 la sécheresse des années 84 donc fépp fu ndox don ta mu commencé wow bi mu commencé wow nak nit ñi dem dëkk fof. ba fa nit ñi dekké nak après 90 taw yi commencé waat a ci lañ commencé wat nak en 1989 di commencé wat, di xalat di wax ay wax yi inondation mais nous ngi vers les années 2000 en 2001 mais que ñu marqué l'inondation inondation 2005 parce que l'inondation 2005 a metti à commencé alerter la conscience populaire le gouvernement a commencé à dire bu en 2006 à Wade a créé un projet moom projet projet de construction de logements sociaux de lutte contre les inondations et les bidonvilles qui a créé un plan mu reporté élection législative yi donc 2006 année déclic la waaye 2009 itam inondation yu metti am ci ñu jóge ci ñëw en 2012 mooy bi président Macky Sall jëlee nguur gi bi mu jëlee nguur gi année 2012 mu nekk année inondation aussi waaye le 28 août 2012 Macky Sall def benn discours adressé wu ci Sénégalais mu ne leen changé habitude attitude nous avons les ressources et les hommes pour lutter contre les inondations Nous avons dina proposer des solutions structurelles pour que dootuñu wax au Sénégal et ce discours am après lu mu ci toftal mooy dafa dissoudre Sénat Khalis bini, a def presque une dizaine de milliards mu jël ne dañ koy Quelques jours après, c'est-à-dire le 19 septembre 2012 euh, mu suis allé conseil présidentiel sur les inondations Qui conseil présidentiel bi mu jël les 10 recommandements 10 décisions majeures yi ma ci gënoon a euh, mise en place d'un plan décennal de lutte contre les inondations Je ci aussi table ronde des bailleurs le 12 décembre de la même année ba a 66 milliards euh, mu en 2019 toujours pour lutter contre les inondations mu le ministère euh, de la restructuration euh, et de l'aménagement des zones inondées donc lolu en 2012 commencé à na ci politique waaye fi may taxaw projet décennal de lutte contre les inondations dañ gouvernement a def 767 milliards parce que y a trois phases première phase c'est la phase d'urgence 2012 2013 nous avons 66 milliards pour lutter contre les inondations ensuite nous avons une phase intermédiaire 2013 2017 nous avons 250 milliards et une phase à long terme entre 2017 2022 nous avons 450 milliards moy 767 milliards yo xamné né nañ def nañ ko ci inondation yi moy ndi ciow yu Sénégal ba mu avons euh, une mission d'information parlementaire en septembre octobre 2020 bu wax né 511 milliards lañu ñu gis ne def nañ ko ci mu un taux euh, d'exécution de 66 mais boobu du woon boobu rek mo nek projet bu gouvernement bi amoon projet nga xamné comme composante euh, projet de lutte contre les inondations bi def ci ay milliards yu bëri amna récemment projet de gestion intégrée des inondations bi nga euh, ministère de l'eau et de l'assainissement à gérer de 2018 à 2023 gouvernement a presque plan Orsec de 99 décret plan Orsec plan d'organisation des secours c'était en 99 je crois euh, décret 99 172 mais depuis lors presque chaque année nga gis ñu ne du du année du at mais at yu ci bëri dañuy organiser wax plan hors euh, ORSEC pour dimbler les ñi parce que nit ñi dañuy nekk tout le temps ci inondation donc pour résumer malgré effort yi nga xam ne nii am na waaye la inondation yi gëna a tar parce que nak li ñu def deug deug deug ci inondation yi dañ ko deful bu ñëwee di comparer ak yeneen réew yi naan yeneen mais dañu am inondation mais parce que inondation ay fleuve koy waral mais ñun gérer évacuer ndoxu taw loolu expertise bi ressources parce que def nañ milliards bi les politiciens ont toujours les yeux rivés vers les prochaines élections et du ñuy sawar di investir ci assainissement parce que dañ naan ay tuyaux loo xam ne ci suuf nga koy def kenn du ko gis te ñoom dañuy bëgg lu visible moo tax généralement du ñuy investir ci domaine boobu ce qui fait que euh, dafa sooxe trop trop trop trop bu ñu jëlee Sénégal yëpp yëpp yëpp li ñu am ci ay linéaires réseau évacuation des eaux usées bu euh, ONAS 1703 kilomètres rek la 1285 Dakar ça veut dire 75 bo cent au pluvial bi 314 km, 189 yi Dakar la si té bo xolé ñi réseau 80 aussi Dakar la damay Dakar 0,3 de la du territoire sénégalais et 23 de la population pour que dañuy wax un peu ci solution solution yi bëri na n'importe qui mën na cee wax waaye li nga xam ne nii moo urgent la ñuy wax mooy réhabiliter et la reconstruction des infrastructures de drainage parce que loolu urgence la Sénégal investir ci bu baax waaye defar ay infrastructures yoo xam ne buñ koy dimensionner mu nekk dimensionnement bu baax parce que généralement infrastructure yi ñuy tabax yu ci bëri bu taw bi bëree mu yàqu mais dafa am benn point bu am solo pour man mooy alerte précoce malheureusement ñun pas alertés. et pourtant il y benn kuréel bu euh, prévisions prévision saisonnière des caractéristiques agro-hydroclimatiques de la saison des pluies pour les zones euh, sahéliennes et soudaniennes de dajale courriel yi yëngatu météorologie Afrique de l'Ouest et organisation mondiale de la météorologie de at mu jot dinañ def ay prévisions wax saison des pluies lay le 25 avril waxoon benn wax taw yi dina prévoir taw yi dina yi mettre en place dispositif de lutte contre les inondations à temps malheureusement ñun dafa mel ci ñun gouverner faire croire wax nit ñi loo xam ne nii du li nekk beneen point bi mooy la restructuration des zones d'inondation am na zone yuy taa te mën nañ ko jubbanti c'est-à-dire mën nañ ci def ay infrastructures yuy tax inondation dootul am waaye am na zone yoo xam ne day jafe nga lijjanti ko dama doon lire benn rapport bu ñu wax ne dañoo jëloon carte Sénégal Dakar 1947 calqué ko ak carte inondation yi Dakar li mu na mooy zone yi nga xam ne nii mooy inondé à Dakar zone yëpp li ñuy wax ay zone humide en 1947 donc comprendre nañ xam nañ lan moo waral inondation yi euh, beneen poñ bi may mujjee mooy euh, gestion inondation le cadre institutionnel de gestion des inondations parce que finalement Sénégal xamul kan mooy gérer inondation ministère de l'intérieur moi le plan Orsec am le ministère de l'eau et de l'assainissement am le ministère de l'urbanisme et de l'habitat am le ministère de l'aménagement du territoire et des collectivités territoriales donc il y a énormément de structures qui sont ci euh, gestion des inondations Nous avons créé un ministère en 2012 mais malheureusement Macky Sall daf ko ministère beau, et que gestion inondation inondations, il connaît, il a fait pàcc jaar la ce qui fait que amul synergie d'action et le gouvernement bi def malheureusement feeñul tay la inondation yi gëna a tar Sénégal té damay wax né je ne suis pas alarmiste nag que ne ñu ngi ci doga am nek 15 août té ñëpp xam nañ saison des pluies Sénégal août le, ak septembre donc dañuy ñaan gouvernement bi mu gëna a parce que xamuñu li ñëw fii le 30 septembre ndax nawet bi jéxagul te eh, nit ñi déjà sonn nañ ci inondation yi fii lañuy ñuy yem ak yéen tey ci seen chronique Jotna TV eh, di leen ñaanal yàlla def jàmm Sénégal mais également di ñaanal ñëpp ñi nekk ci mbënn mi yàlla teggi tiis bi ba beneen yoon incha allah